waaw ndeysaan mbokki waa Sénégal mbokki waa àdduna ñu leen di ziar bu baax baax di nuyu ñëpp di wax tamit ndeysaan ñëwat nañ nag seen émission Ndongo Lo ba faw tey nag ñëw def live fan direct fii ci studio Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo def nag live bi ci Facebook bi di ci synchroniser ak Bëgg Ndongo TV international di bëggee gaa yëpp bu baax a baax a baax a baax baax yes yes yes. dëgg gaay ma dem na ñëw partagé partagé. waaw bëgge gars yi bëgge bëgge bëgge waaw ma bëgg war gars yi baax a baax di bëgge ñëpp baara sàmm maa lay bëggee moom moo kon suma maa lay ziar bu baax a baax di bëgge ñëpp les téléspectateurs du Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo di bëgg ñëpp nag di wax ne tey ne tey ndeysaan yéen a ngi en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV Cheikh Diagne waaw maa lay bëgg bu baax a baax di bëgg ñëpp di wax gars yi kaa leen naan ataaya tey nag ma bëgg pour waxtaan bi neex nag ngeen partagé waaw ngeen partagé rek mu law mu law mu law ma dem te ñëw léegi-léegi

ku la sagal di bëgg war gars baax a baax baax di wax tamit yéen a ngi live en sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV internationale la chaîne télévision autrement de Ndongo di bëgg gars yi di bëgg mbokk yi ndeysaan sama turandoo Sele Mbaye maa lay di bëggee Binet di bëggee ñëpp ndeysaan bàyyiwuma kenn kenn kenn Wow, selain bayi manis ya rubah. Dibega ñëpp nak dibega ñëpp baax baax baax baax. Wa tay nak fi day tijé ndaysan muy son lo bi so bëggé ki ci tëgg dama ci mom, so bëggé ki ci malax dama ci mom kuy bëgg bëgg lu baax boy def dafa lu baax. ay fi day tijé rek ay tok ni def live and direct ak yeen ci studio bëgg ndongo TV international. la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo chargé de mission dëggal jubal leeral di def nag live en direct bi fii si comment dire fii si studio Bëgg Ndongo def live en direct nag fii ci Facebook Bëgg Ndongo nag national bi mu ciy synchronisé nag ak chaîne télévision mag boobu di Bëgg Ndongo TV ak national même bëgg gaa yëpp di wax tamit euh, maa ngi ziare waa àdduna bi ñëpp waa ahlu Ndongo Lo bi ñëpp bàyyiwuma kenn may bëgg ñëpp ku nekk fa nga toog fekk naa la fa di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu li bëgg ñëpp lancé appel bu baax a baax nag secteur boobu di ndeysaan xam tamit ni ñuy dégg rumeur yeeg fépp si dëkk bi may ñaanal aduna bi ñu nekk ci aduna bi ñu nekk diaspora bi wa aduna ak wa modou beeg ñep fep doomu adama nekk rek ma lay wax tamit ni di wax tamit yalla na ci yàlla musal képp ku doomu adama te tamit lima ma dégg tamit ñi kay rumeur di wax tamit jot na fi am tamit yalla na si borom tamit def na fa yem na fa yem ñi nga amoon ak ñep tamit wër ci jamm ak salam may lancer wat appel bi rek di wax ni xala tamit gaay xawa Dakar rek daja daje tuti ba da quelques dir rek ndeysaan ñu continué waat daje yeeg muy soirée su waxtu kër gi kër dajé soirée sax motax may wax parce que biir kër kata ñu àggali soirée ak yenn affaire yi waaw doxala muy bëggé ñëpp nak di wax tamit fepp way nek dal yalla dafa yalla yalla dafa xew lu baax baax may ziaré sama xarit sama jigéen Nabou gay borom Espagne di ziaré sama grand sale Mbaye sama trondo nga ñu ne tudd Sala yombul di bëggé ñëpp di bëggé grand Jiriña Ousmane Jordan Fall di bëggé waaw limi ma limee ñom juum ñoom Baye Demba ak ñëpp bàyyiwuma kenn Assane Seydou Seexu yàlla bi ma ngi di bëgg bu baax baax du nuyu nak prix particulièrement nag wa ki comment dire wa VIP mam Cheikh Niang family moy bëggee président moy al Alhaji Dia di bëggee tamit vice président mam Mbengue Seck di bëggee mbay cham la porte bi parole di bëggee tamit Pa Abdou Thiam le trésorier mam Cheikh Niang maa ziar di la di le wax tamit ci kaw ci kanam rek di bëggee ñep dal bayo ko kenn di bëggee ñëpp baax a baax a baax a baax émission ba faw ba bëgg rek na partagé ku dugg rek na partagé léegi yaay baax baax waaw soo mi rek laa koy may parce que la mu ngi ci way fii laa doore sale mbay yaay ñu dem ba xam xale bi ree na waaw tey nag may bëgg gars yi ma teg nii genre échauffement la mais ci kanam damaa bëgg a indi benn son bu si ci la Ndongo Lo way laat borom belal boobu nag laa bëgg na ñu teg ko mu nekk débat émission bi mais son bima tek ni nii ma la ni rek pour gaay dugg ci te tamit képp dugg ci tamit man mën a partager affaire law benen yaay mam Fall ma ngi lay ziar musa jaay jaata ma ngi lay ziar salam Mbaye sama grand waaw di bëggee ñëpp Cheikh Mbacke Diagne moom mo kon zoo Chéri Gaby maa ngi lay ziar ak ba Baara Samba ñëpp. ça va Cheikh a Diagne waaw de verdad yo soy contento muchas gracias partagez partagez sagaloo man mii loolu dëgg la bëgg faatu de wala duufee loolu dëgg la sagar nee na waaw waaw seer nee na waaw xale bi nee na lu muy reeta bay dem ba xale bi nee na nago loolu lu muy reeta bay dem ba xale bi jooy na nago lu muy ree moom dafa set si ndongo waxtaan ak ndongo join up. Mom join up. may bëgg gaay baax baax rek di wax ci ba ndeysaan tey dama bëgg nak pour émission bi neex képp ku dugg rek na nga partager wax dëgg fa yalla ku dugg rek partager ko mu wër ñu mëna jaakarlo waxtaan suñu biir émission bi neex vraiment waaw ku dugg rek na partager xamna instant bi ni ay morceau de chef ma lay tek ni mais ci kanam touti dina indi morceau numéro boobu nga xam ne ci la woyee ndeysaan wuy laatooy laate wuy laatooy borom belal si abdinaan war na du beegay de yoon yee li nga don li nga doné eh, waaw ndaysan bobu non la bëgg indi teg ko ñu faram faccio ko waxtan suñu biir so mom kessa tay après ci kanam la bëgg indi instant bi nak ay morceau de chef ma lay tek ni pour gars yi mën a dugg si ndànk-ndànk maa ngi seen ndeysaan yaay l'enfant béni maa ngi bëgg baax a baax. fa jooy lu waaw maa ngi seen sama copain Cheikh. Cheikh Kébé. Cheikh Kébé. Cheikh Kébé. dongo lu muy reetaan xam naa ko ne gis naa ko waxtaan nag moom te nee na waaw nee na waaw may dem ba xale bi jooy naam dafa jooy dafa jooy dafa jooy am dafa ree dafa reetaan dafa sël si dongo waxtaan ak dongo dongo ne ko waaw xale bi jooy naay waaw ndeysaan casquette bi nag ma ci sali le passage tons Djily Mbaye Fall moom ma ko jox ma bëgg ndaw international ma ne ko naam munoo boo def te émission rek sol ko moom ku baax jóge ba France ndeysaan ndax yéen a yéen a passé ndeysaan ma koy ñaanal tamit bon va réponse kase yaay bàyyi jiili mu ndaw wawa mokunda yimodu kaseto balamalamba balamansabinda wawa ya, jaajëf Cheikh Kébé maa ngi laa ziar waaw ba tey sama soo bi laay wëri ji rek laat bi laat bi laay wëri ji waaw ñu may sëñ Fallou dëgg waaw ba tey dama bëgg gars yi ku dugg rek ndax partagé partagé partagé partagez partagez partagez partagez rek Mbàkke way na war na ma danga war na ma Alaaji Fallu Mbàkke Mbàkke Mbàkke defal sama maam yi ñu di sidi faal si dee am la ñu ñaanal ko ci bambal defal way ñu xaale ñu bambal bàyyi bàyyi karim dawal na yow bàkki partagez partagez gars yi partagez rek kay partage rek partage rek kay ah caax caax caax caax jaay fi caax Cheikh Fallou Ba Cheikh Fallou Ba Sefalaba, sefalaba, sefalaba, burdi begore. Ala di falaba keba, sefalaba, burdi begore. Esatto. waaw noonu la Cheikh Kébé waaw partage rek Cheikh Kébé sama Kebe ko buzuma ifamula Kebe buzuma ifamula Kebe buzuma ifamula Dila way Soxbali la Way sa ay dila sa dila Agalas Muyo gamu

oto bi maa si ginnaaw rek ndeysaan ndeysaan Sëriñ Fallu Mbakke ba kenn du Sëriñ Tuuba allo waaw maa ngi laa ziar yaa ngi en direct ci ci émission bi mooy loolu ndeysaan yow da ngaa baax rek Cheikh Kébé man yow da ngaa baax rek foo nekk ni yaa ngi Touba ndeysaan dëgg la yow yow kontaan naa la de yow moom da baax yow moom lu yàgg dëgg la xam nga sànq maa lay gis nii ci live fan direct bi ngay seetaan moom yàgg nga nga jël téléphone oo ma def woo ma direct xam nga loolu yombul ndeysaan waaw yow yow ku gore nga nag ku gore gore nga vraiment Cheikh Kébé euh, waaye yàgg na de est-ce que du est-ce que du kii. dëgg dëgg la est-ce que du est-ce que du du xama comment dire du mënul vingt ans sax 2003 ak léegi. 2003 waaw je pense que 2003 ak léegi mën na vingt ans de. war na kaa mën de parce que ndeysaan boobu nangu loo gaañoo. presque 18 18 ans. waaw boobu nangu loo gaañoo gul ndeysaan. boobu gaañoo gul non non non ëpp na ko. barki yàlla nga jàpp. 2001 2001 je pense que c'est 2001. waaw 2001 mu ngi xame ba xame ba kay yàgg na man mën maa jàpp at sax xame bi yàgg na waaw wax dëgg yàlla ma ma ma ak ma boole tamit ak maam Cheikh Niang tamit wax dëgg yàlla tamit nga di ko jàppale di di waaw mooy loolu lépp te doo wax barki yàlla. yow yow macha eh, rek Cheikh Kébé billaahi wër na yàlla. non yow amal jàmm rek amal jàmm bu baax a baax. non yow yow yow yow gars non bul ma jaay rek damay jéem rek. bul ma jaay damay jéem rek sax. Mhm, dëgg la. dëgg la laa jël jàpp sama bopp mu jeex tàkk. dëgg la dëgg dëgg la. yàlla na suñu fàllu yokk su doon rek. amiin waay amiin amal jàmm rek amal jàmm bu baax a baax. kese kese jaajëf yaa ngi nekk en direct sur la chaîne télévision bëgg na TV International mais dara yow ba si kanam. waaw maa ngi gis nii ci online bi Cheikh Kébé yaa ngi seetaan gis naa la yaa ngi seetaan gis naa nga partage vidéo bi. waaw mais yow morceau morceau bi daa lay rek maa Fallou bi. allo. ma ne ko maam Fallou laa lay may rek. amul xam nga damaa nekk live nii mais yaa ngi en direct après yow partagé rek comme ni nga defee noonu noonu la boo seetlee rek partagé gis naa nga partagé ko. waaw waaw waaw mu dëgg la. ndeysaan ndeysaan. dëgg faaw ñu partagé ko. waaw yow partagé rek séddale. partagé séddale séddoo. waaw jaajëf jaajëf. kon ko yéen merci. non maa ngi doon kontaan ne nga dafa neex yow ngeen def sa émission bi. waaw sama gars yëpp dañuy kontaan ñu jege soon ñëpp dañoo kontaan. ndeysaan ndeysaan ne dañuy am ñu jéggee ndongo loolu ñoom ñëpp na tekk li dégg. ndeysaan xoolal lool xoolal lool. bilaay wallaay dañoo dégloo na waaw maa ngi dégg baax a baax. yow amal jamu, amal jamu kebe li nga def daa roy amal Oke, baax a baax jaajëf Oke, si Oke, ok mbokk mi Cheikh Kebe jaajëf waaw kon yéen a ngi déggoon noonu sama grand nag moo doon woote sama xarit nga xam te ne ndeysaan man ak moom ba ñuy xamante ci ndongoloo ji yàgg na trop mun naa ni man jàpp ma at bi 2001 la ba léegi boobu ndeysaan ndongoloo mi ngi dund mu nekk lu yàgg trop tey ndeysaan may def sama émission tamit mu jël téléphone am yëkkat téléphone am oo ma nii en direct live en direct oo ma waaw gën maa ñaax ni ma rek jàppal mooy loolu mooy bëgg na sama ganaar dan borom zak dam baaw dan dan sama ganaar maa lay bëggee di waxtu bi nuyul ma maire bi ak ñoom jaar ak ñëpp ñoom papeek ñëpp ak waa zak mbaaw yooyu ñu dem may xanaa may bëggee gars yi rek di wax tamit ndeysaan yéen a gisandoo waaw Ousmane Ndaxaar maa lay bëggee dina wax ne la naka waa Italia maa yéen a am jàmm baax a baax a baax a baax a baax waaw Ousmane Ndaxaar waaw comme noonu rek yow boo duggee rek partagé Ousmane boo duggee rek séddale waaw affaire yi moom séddoo séddale la boo duggee rek séddale la waaw Cheikh Kébé maa lay bëggee bu baax a baax a baax a baax di la may mor sëñ Fallou bi waaw di wax gars yi leen grand Cheikh Kébé tamit nekk ku ñàkk ñaan ku baax a baax waaw vraiment tamit parce que day seetaan émission bi ba mu yàgg loolu doy ko muy que téléphone am oo ma di ma encouragé grand Cheikh Kébé yow vraiment ku baax nga dama lay wax bàyyi naa Sëñ Fallou rek ci weeru màggalu Kazu Rajab bii waaw bàyyi naa rek Sëñ Sëñ Fallou rek vraiment wax dëgg fa yàlla waaw di bëggee ñëpp nag wax gars yi partage ne rek mu wër may bëggee ñëpp daal ndeysaan vraiment waaw damaa kontaan ba amul wax mais tamit gars yi dara ku bëgg tamit dugg si émission bi tamit mën ngaa def comme ni Cheikh Kébé def rek boo ma ci 00221 77

waaw ndeysaan soo baa ni li mu bind ci biir géej bëri na son dama live bi neex na trop show bi neex na trop teg ay son di commentaire di wax ni neex na trop mais tey damaa bëgg vraiment tamit man awma xam-xam awma dara mais damaa bëgg yéen ñi nekk ci ligne bi muy téléspectateurs yi nga xam ne seen naa ay cent et quelques téléspectateurs ñu may suivre en direct dama bëgg ñu waxtaan ci son bi waxtaan ci wàllu xam-xam xam nga nag yokkante ay xalaat bare tamit yéen a ngi seetaan en direct bu leen neexee bind message man ngeen bind message ngeen bind message dama koy jot di ko lire nii ci écran bi nii en direct comprendre nga son bi laa ñu waxtaan si parce que son bi ndeysaan sax xam naa mi ngi si online bi mais war naa dugg tamit ñu waxtaan jàkkaarloo nga xam ne Ndongo Lo mi ngi ko joué woon Ravin ginnaaw nag ndeysaan bi mu defee longue d'absence ci chaîne bi nga xam ne dafa feebaroon def longue d'absence ci chaîne bi def tamit bu mu wéyee tane gars yi engagé Ravin mu war fa joué joué la joué bi ndeysaan daal di woy ni laat borom mbelal woy ci tamit euh, ni gëmal ni yàlla laa yooyu dafa tiis bëri xaaxaam bu la dina ngay xaddi nit koo gis teyal ci moom li yàlla yor mu ci doomu aadama yi mais son bi mën a wax ni waaw non non ci lépp lu ci bëggoon kon nañ bàyyi bi mais nag dañ koy indiwaat di ko waxtaane son bi li yàlla Why you me from the waaye xoolal ngir fam di fekk ñooy war di fas yi dawal ñooy dem di xar yi lekk ngir ngir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gars yi ma ñëw mais partage partage ma ñëw borom lay tollool bay laa borom lay tollool gay dégg Bila wadaru. Wadaru, kacang dong ngomong desa mereka. Kita, kayak apa ya? Tahu sembah, gigi gigi waaw Ablaye Gueye Ablaye Gueye borom Espagne maa lay ziar tan maa lay ziar Seynabou Seybatu Diouf di bëggee Iba Mbaye ane waa lay bëggee de xaar nga Iba Mbay waaye partager rek eh. Awal li nga doone c'est ça gars yi partager séddale séddoo séddale séddoo waa alaaji seexu alaaji seexu maa lay ziar alaaji seexu ñang borom sax tam baawa maa ziar bëgg kër ga sama yimpaañ ami Touré ami bëgg de Touré borom Zag Mbaaw waa di bëgg Ousmane Ndaxaar borom Italia di wax naka gaayam lan nooy ma laaj yi waaw pour di leen wax rek di leen fàttali li tax ndeysaan son bi yéeme trop mooy ndeysaan fii Ndongo Lo mi ngi way rafet ba jël micro bi taalaat farsi neen isaa bi nii fii nii lépp am na fi dama leen laaj rek yéen fan si ndax son bi may génne nii muy troisième album bi su leen neexee ma def ko live wala yu euh, bees yi yu bees yaa ngi fi ndeysaan lu yéeme yéeme sax loolu nag xam naa sama grand yi ku mel ne Assane Seexu yàlla bi xam ne tamit joué ma doon lu ndongo way mu topp di ndeysaan xam naa moom a ciy gën a indil ay leeral xam naa moom sax mu si online bi bëgg naa sax moom mu dugg Assane Seexu yàlla bi la grand claviste de ndongo loo boo duggee ñu waxtaanee loolu troisième album bi foofu def na mu doon live wala yu bees bu leen gënal live ah yu bees yaa fi de waaw loolu tax na si de li lay doon li ñu su naawul jaaxali mag ñee mag ña ma jàngal waaye may jàngal ndaw ñi guy gi daar gaa ngi fay mën ñu jàngee loolu li nga doon gars yi ma ñëw léegi-léegi partagé séddale waaw ku soxla fàttu réew mi yaay mënuñu koo am loolu dëgg la fii ngeen juddoo man sene njaguroy laa juddoo jamonoy mbambal laa leen xaar may way allah kasira ñu taxaw soo bi lépp histoire la dëgg la mu wax nee na xaw leen woon xamoo leen ma woon gisuma leen woon gisoo leen ma woon jamonoy mbappal laa leen xam may way allah kasira ndeysaan allah kasira ndongoloo moo ko jëkk a way anamu tey ku jóg piraté ko su ma juumunee sax am na waaw yaa ma gën a xam jëlul tur sax di may ñeneen ñi buzz mais allah kasira à waaw yaa ma gën a xam ku jóg way ko te allah kasira ndongo low moo ko jëkk ko way ndeysaan ma nga daan way naan allah daan wooyee à la fin waykat yi mag yee ñëpp jóg di nga xëccoo noonu la ma bàyyi kaak ñoom te xam yàlla maye fekk jeexul yaa ma gën a xam mooy loolu ñu dem naa ko fekkoon di ko way daa naa ni jum di ko joobee ma ba ko gaañ te xamili yàlla ma yee fekkee xul gaañee li nga doon li nga doon li nga doon li nga doon li nga doon li ma doon li nga doon li ma doon oh partagez gars yi eh, Iba Mbaye partagez daf leen manqué yéen ngi gaañ sama jigéen ñi waaw waaw góor la déggoo noonu wax fi nee na yéen a ngi gaañ samay jigéen ñi waaw waaw ndeysaan jour boobu rafet ku ci mel na munaas sama jigéen ma ndeysaan borom Pikine munaas jaaju jour boobu ma nga woon rafet boo xoolee ma nga woon ca kanam mais jour boobu rafet daa fees fees ba comme gars yoon na mën ndongaloo rafet fees na genn façon fees ba am si nit ñi nii doon booxantee léegi nag ni nit ñi boo xamante ni xam nga jigéen de sax amul doole léegi ci lañ poussé jigéen ñi nii ba comprendre nga waaw affaire yi encombré nit ñi puusante puusante ba yenn jigéen sax di daanu moo tax foofu noonu dafa arrêté way daan ni yéen a ngi gaañ samay jigéen ñi waaw waaw xam rek noonu dafa wax ak ñoom ci ci xel la wax ak ñoom ba à la fin ndeysaan nit ñi areeraat ba lépp defaru te pourtant boobu garde yeeg ñiy pousse nit ñi ñëpp ñu ngi foon mais amuñu woon capacité maîtriser nit ñi mais Ndongo Lo ndeysaan sa yar ga ak sa baax ga ci biir woyi microm rek la téye mic bi wax ak fans yi fans yi dem ba à la fin ñëpp xoolal yaruwaat organisé waat areeraat bàyyi buuxante bi te ñu ngi doon buuxante ba am ñuy daan mais ci la nee terme yéen a ngi gaañ samay jigéen ñi ndeysaan gars yi taxaw xoolante mu ne yéen a ngi gaañ samay jigéen ñi waaw waaw ñëwaat encore daal ku sopp Serigne Fallou Mbacke dellul ginnaaw tuute yee waaw ku loolu moo waral woy boobu non nee ci la gars yi arrière arrière ya da ya hat lepp nice do ko ne développé nga ni ne Ndongo Lo du moroomu benn artiste tay ñaata artiste nga tey ñuy woy gis incident ci kaw scène bi duñu sax duñ ko sax lejeenti dañuy ko ne woy seen woy mais ngay woy ba gis incident nga arrêt nga off say woy woy ci incident bi wax ak gars wax ak gars ba lepp rek la woon waaye Ndongo nit yag na woy fan sa ko mel comme man wala keneen ak keneen ni bërët bëgg yeek sur scène garde ko capte la nga deg mu ni bayiko bayiko mu ñew carte bi bàyyi la nga ñëw waaye ndongo ndongo ku sopp Serigne Fallou dellu ginnaaw tuuti yeewaaw. Eh, c'est ku sopp Baye Mbaye dellu ginnaaw tuuti eh. yeewaaw. naka sopp Serigne Fallou. ma Yacine Sango Mbama Yacine Sango ak Mbacke Bamba la Kos. Mbaye Sène Faté Womaay. c'est borom aéroport. Ibou Diouf. What they want, wow. Nigga dog, nigga dog, nigga Ibrahim, yaa ma bëgg am maa la bëgg may seen mbokk ndey papa caam papa caam mbokk ndey aji ma gëddoo papa caam su ko jëlee jigéen càmbel kër jigéen saa ñu waare waar sama am dañoo xëy bi bàngala dañoo xëy bay daara teel a ñàkk bàyyi góor ku mbaa Guru kai samra guru karne cha guru karne cha champa de de yai ke boloi sai yai niga don niga don niga don niga don niga don partagez partagez partagez seddale seddoo déglu leen fi bu baax a baax lu garaaw la noonu way fi fii la naan ku bëgg bëgg naa ku bëgg sa yaay loxo sa kaw a kaw waaw waaw waaw Ndoumbane Niang waaw Ndoumbane Niang maa waaw surtout jëgg mi daan way daali Demba Caani Mamor mbur ma ca caani maa bëgg bu baax a baax Ndoumbane Niang ña ngi baanu waaw fii déglu leen ko attentivement ngeen déglu fi mu way bëgg bëgg naa suul jigéen bëgg bëgg naa sama jigéen ñaa ngi nii waaw ndongoloo day gees ngeen xeex ku ko wax ngeen xeex ku bëgg ndongo bëgg laa ku bëgg sa yaay loxo sa kaw a kaw waaw bi yéeme woon na moom mee soo déglu soo bi dafa yéeme doo bëgg après ñu jàngat ci. nu man ñaa partagé kii ñoo juddandoo nyo yarando dal warna mandumbanya demba cani mamor nyagi mi dan way dade mama nyara sama masih di nani game wawa Soalnya Aisyah waa soxna Aïcha maa lay ziar bu baax a baax Aïcha Rasoul borom boutique ku bëgg ay sañse bëgg sol lu rafet demal seeti Aïcha Rasoul waaw Aïcha Rasoul demal nga seeti jukko nga def say commande waaw Aïcha Rasoul maa ngi bëgg baax baax baax baax baax baax waaw maa ngi gis message bi nee nga ma macha allah lu neex si kaw si kanam rek incha allah ay tamit ci kaw ci kanam rek siiwaral te tamit nga partagé ay Rasoul partagé séddaleel yéen a ngi nekk en direct sur la chaîne télévision Bëgg Ndongo TV international la chaîne télévision autrement de Ndongo Lo sasa de deugal djubal leral di bëgg gars bu baax baax di wax tamit ndaysan yene ngi ni nak ci émission bu mag bobu di émission nongolo bafau ba faw seen émission nak ba faw nak chaque dimanche ci waxtu bi ci heure bi jakarlo ak def ak life live fan direct ak chaîne télévision bëgg Ndongo TV international instant bi ni ni ni ngeen ma seetaanee ni Facebook su ngeen dugg ci YouTube bi non ngeen di jakarlo ak man parce que ci Facebook laa koy defee activer synchronisation bi mu synchroniser ak YouTube bi nga di ko am fii di ko am fee muy seen émission Ndongo ba faw kon gars yi partagé leen rek ñu àndandoo waxtaan partagé partagé séddale séddoo jaajëf gars yi na wër ci seen xol dafa fees ndax maag ñoom ñoo yaay juddandoo yaram doon màggandoo waaw maa ngi fi seen ndeysaan sàmm nasru karo borom karo yi waaw sàmm temps dama bëgg karo la de dama bëgg nag ay 100 carton de karo waaw sàmm nasru karo maa lay bëggee bu baax a baax a baax waaw Mansour Lo mu ni Ndongo Lo moom dama koo bëgg rek ndeysaan dëgg la Mansour Lo maa lay bëggee baax a baax waaw gis nga de ñun ñëpp bëgg Ndongo Lo yow da ngaa bëgg Ndongo Lo man damaa bëgg Ndongo Lo mais xam naa laa bëgg partagé leen rek képp ku dugg rek bu commencé suivre rek partagé mu parce que ñun fas Ndongo Lo xamuñu déglu Ndongo rek dañoo bëgg di dégloondoo Ndongo maanaam di séddale di séddoo xam nga tey maa ngi sama biir nekk déglu Ndongo Lo dama def live fan direct ñun ñëpp ñu àndandoo rek séddoo séddale jaajëf gars yi ma gaañee xam ngeen lii dafa neex dafa neex jàngaa joxuma leen mbubul ngeen sol joxuma leen ngeen lekk ba suuree woyuma leen ndaxama seen tur lu nu wax ci Ndongo Lo ngeen xeex ba tey fii encore Ndongo wax na message bu am solo yéen a yéen bëgg gaa ngeen bàyyi ci xel fii la ne gëm ma